Tiga def na gàddum def na élève xam ne ci kattanu yàlla à partir du 27. mooy jumaa ji gën a mag ci Afrique de l'Ouest jumaa joo xam ne daal ma doon indi hectare la kon na nga xamante ni xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko denc doon nit ñi dencal ko Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul xam ne fii may wax ak yéen am benn benn hectare yu taxaloo. mbooleem fukki dara suñu toll nii ñu ngi ci tolloo damay faral di wax ni gouvernement ba mu naan modernisation fekk na sëriñ daara yi dépassé nañ ko mooy problème modernisation daara lay wax sëriñ daara yi dépassé nañ loolu ñu nga ca leneen yàlla taxaw ko ba ñëpp àgg ci loxoom ba bu jaa àggee la ca war a tegee ab institut de recherche sur le soufisme ak benn salle de conférence boo xam ne fu ñun daara xewle te mën faa dem muy salle boo xam ne dina jël lu mat ñett junni doomu aadama moom lañ bëgg def foofu ci Massalik loolu yëpp yàlla na ko yàlla mottali ñu ngi porté aussi di ñaanal son excellence président de la République yàlla jàppale ko yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko li nga xam ne mi ngi ko contribué na ko ci Massaliku Jinaan murid yëpp bëgg nañ ci li nga xam ne jàppale ci Massaliku Jinaan murid yëpp bëgg nañ ci événement bii ñu jëmee ni mu ko jëlee murid yëpp bëgg nañ ci jullit yëpp bëgg ni woon moom ren. ndax xam ci dina invité institution yu am doole ci Afrique ak àddina bi ñu teew ci kon moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko yàlla dëggal ko ñu bëgg ci Sénégal bëgg ko def ci dina yàlla na ko yàlla Seydina Mouhamed ñaan bis bi yàgg koo fekkee yàgg koo tal yàgg koo teewee yàlla def lépp muy yiw jaay si Mouhamed réew mi nga xam ne amuñu dul moom muy réewu Sénégal yàlla defal ñu fi jàmm defal ñu fi unité defal ñu fi stabilité li nga xam ne pétrole bi yàlla def mu ñëw ci jàmm doon xéewalu Sénégal doon xéewalu Afrique doon xéewalu jullit moom ni ko Oustaz Mouhamed mooy daara joo fi dem lu ne la maanaam fi mu toll ci vacance la ñu leen diine daara yi ñooy dox école franco yi garderie ñëpp dañoo ne vacance réew mi te daara joo fa gis seen daara ba am na franco arabe kon ku fi yëngatu ak yeneen franco arabe moo waral ren ñu ne nag comme dafa tànn te nawet la daara yi nañu tànn ay daara amuñu lu gën a lislaam ñooñu di boobu ñu jël la duy boo xam ne dafay wane en wane racisme wane ñàkk warmal diine te loolu yàlla yàlla dëppale ñu ñaan ñu dellu ginnaaw ci décision boobu ñaan ah. Ah, doomu julit boo xam ne yaa ngi ne ci ñu bëgg a xaj sa diine wala sa comportement religieux nga jël sa doom yóbbu ko fu taxaw xam ne bu demee